ndax taalu bi la maam Cheikh bi la laa bokk ak moom ñoo bokk benn ëtt bu ñuy liggéeyal sëñ Touba ak Cheikh Ibra muy taalu bi Cheikh Mor Talla Fall bu sëñ abdu Aziz Fall mu seex Mor Talla mu maam Cheikh Ibra Fall muy jàmbaar lool nag ci waar wi liggéeyub bi Ibra kenn mënu ko ci bu ndogu yu jotee parce que day bàyyi këram bàyyi léppam toog Tuubaa ndogu yi jeex tey bi ko sëriñam déggee muy Cheikh taal dafa ma woo ni ma demal nga toogal ma ci kër gi ak njabootu Cheikh Ibrahima gépp muy ku bëgg Cheikh Ibrahima nag fee ñu ko yóbbu tey yal na daje ngërëmu Cheikh Ibrahima ndax bu masaana màggal si lépp bas dina ko def waañ wa bale di forkit yi lépp bas da koy def bañul dara oyof baax yaatu muñ ñime njaboot soxnaam si bu ñuy ñëw ñu bàyyi dara lépp luy defar ndékki Tuubaa dinañ ko indaale mu yaatu moom it baax jàppale boroom këram tey njabootu Seex Ibra gépp a ñaar ma di ko ñaanal nag ci turu seex Mor sëriñam ak njabootu seex yu bëgg yépp ci seen njab turu kilifa ñu di ko wax sëñ Abdou Fall mu seex Mor Talla Fall ngi ko koy ziyaar di ko ko jaal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge bañ ko déggee bor sëriñam bi ma wooyee daf ma ni nit ñaa ngi nii toog ak nijaayam sëñ Sidi mu sëñ Abdoulaye sëriñam doomi sëñ Abdoulaat ko jur muy soxna Asu Mbàkke soxna Asu Gaawaan bu sëñ Abdoulaat mun ma ñëpp a ngi ni toog di xaar bas kon nag moo ko liggéey yal na dajee ngërëmul sëñ Touba lépp lu xanaa ñun ñëpp rek tiit jaaxle koo wax ndax xam nga jëkkoon nañ ko fi fiir koo wax ñu ni xëy na duy wax rek ay wax la rek waaye bi télé yi waxee rajo yi waxaat wax ma woo sëriñ sëriñam woo ma ni ma moom laa la doon doye demal ma fa nga taxawal ma fa dem ba Abbas Ndaw ba mu départ nga doo di ñëw looloo mu fi indi waaye bas lu mu am dafa jeex ci Seex Ibra ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jëm mu fi bàyyi yal na ci yàlla teg loxoom liggéeyal na Seex Ibra de dañ tubaab Seex Ibra taal mboolem waa kër Seex Ibra yépp a ñaan kon nag ñu ngi koy ñaanal yal na tuuti Touba lay ci kawam ci dooley Seex Ibra Faal. maa ngi leen di fay bu baax a baax. waa ki wàññeeku fi tey muy Bass Diakhaté lan la nekkoon ci yow. man Bass Diakhaté jabaram sama xarit la Bass Diakhaté maa ngi ko xamee Medina bu suñu jonni tey booba yàgg na am na ay vingt cinq ans vingt six ans jabaram nekk sama xarit bu baax bas Diakhaté moo gën a oyof mbaxana dafa baax ba jéggi baax bëgg na njaboot bëgg na mbokk bëgg na xarit bëgg na àndandoo man su ma ñëwee ci kër gi day mel ni man sama kër laa nekk surtout maa nag doomam bu jigéen su ma ñëwee fii comme jikko papa ji lu nekk la may defar lu nekk la may defaral doom bi te xale la man bi ñuy wax bas jaxate tàgge ma ko dama ne gëmuma ko ndax yàggoon nañ maa wax ne ma gaañu na gëmuma ko ci laa woowee soxnaam mu ne ma liñ la wax de dëgg la ma koy ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla ko fi suñu borom teeru yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam xam naa ne daal moom moo gën a oyof mbaxana xale mën na koo yendal ci tali mën na koo fanaanal ci àll mën na koo def loolu lépp dañ koy ñaanale fa mu jëm yàlla ko suñu borom yëkkati ci jërëjëf Ndiaye Moustapha. yow ban yëg-yëg nga am tey ci bis bi. yëg-yëg bu metti daal bu naqari bu naqari ndax man gëmuma man duma gëm ni tànk gisuma ka nga xam ne moo séq ak moom. metti na lool nag mais jabaram ji ku baax la ku gore la ku yiiw la ku bëgg doomu aadama man de dama koy bàyyi ak suñu borom man bi sama jëkkër génne àddina moom tere defal na ma loo xam ne man sax defal na ma loo xam ne sax am na ñoo xam ne defaluñ ma ko te bokkuma ak moom dara ndax moo ma bëggal boppam ñoo xamante lu yàgg du tey dama koy ñaanal yàlla rek muuru yaayam bii yal ko summee jàmm ak salaam yal na ko ci yàlla may wér ak gudd fan li muy séntu ci njabootam gi yal na ko ko suñu borom won ci àddina bi mu fekk ak njabootam lépp tamit ñu ngi leen di jaale yal na leen yàlla may xolu muñ noonu la àdduna noon la ku motal rek dem ba pare doon ko defal askan bii de askanu Sénégal donc lépp loo xamante ni xamoon na ko ci xam-xam mu ne ci moom partage woon na ko ak Sénégalais yi lépp lu ma xamoon ci lu baaxit it woon ko ak sénégalais yi rawatina ñun ñii mu nekk loon xam nañ ko ndax moom mag mag bi ñu nekk ak léegi matagul sa deux semaine donc man dese bi nii léegi laa ko yëg gëw ma ko woon sax parce que comme jamono dafa toll foo xamante ne léegi dangay dugg ci réseaux sociaux yi ñu rey ay nit fekk deewuñu donc ki ma ko wax bi ma ko waxee dama na ko est-ce que li nga wax wóor na ma am ñu ma woo téléphone ñu confirmer ko ma ne ah kon loolu loolu loolu am na mais euh, euh, waaw loolu loolu man mii di wax yow def naa ci vidéo mhm. man ci sama jëmmi bopp defoon naa ci vidéo wax ci loolu ki koy def na ko bàyyi parce que ki koy def defu ko bàyyi bas rek mi ngi koy def ay sénégalais yu bari te ba léegi mënuñu xam kii def loolu kan la te ba léegi mënuñu ko jàpp kooku war nañ ko mën a jàpp parce que Sénégal yaakaar naa li fi nekk ci ay borom xam-xam li fi nekk ci wàllu technique am na loo xamante ne boo nekkee ci réseaux sociaux di ko wax war nañ la teg loxo xam yow yaay kan yow mi koy def xool yow mi koy def lan nga defal Sénégal yi tuye kii parce que boo xoolee ñi ñuy rey ci réseaux sociaux yi ñëpp ay kilifa lañu ay nit lañ yoo xamante ne dañu am ndey am baay am ay doom am ay soxna dekk nekk ay nit yoo xamante ne askanu Sénégal daf leen soxla kon kii askanu Sénégal soxla kooku kii wax ci moom war nañ xool kan la kii wax ci moom war nañ ko téye ba laaj ko yow li ngay def pour lan la pour buzz la pour wut wut ay vues la wala pour am abonnement la wala lan la quoi parce que man je me disais que ni kii def loolu il est nul parce que nit ki bu fekkee da ngaa gëm sa bopp gëm liggéey bi ngay def war nga ko rafetal ba ëllëg buñ la ci taajee laaj la ci doo ci ñaaw nit ku nekk nag sa jëfi tey moo doon sa jëwi ëllëg te yaakaar naa ni nekk ci métier war cee jaamu yàlla di ci lor doomu aadama yi di ci wax loo xamante ne ñaaw na bés boo jàkkaarloo suñu borom di nga ko wax li métier bi nga doon def yow ana lan nga ko ci dimbalee moom suñu borom parce que xam-xam bi ne ci ñun yàlla moo ko def ci ñun nit jàngana na xam-xam ba tàyyi te mënu ko waaye kon boo jàngee xam-xam ba mën ko c'est grace à Dieu nga war a rendre à César à ce qui appartient à César mooy lan sant ci yàlla mooy sant ci ñi nga xamante ne xam-xam boobu moo ko def ci yow. en tout cas sénégalais yi perte nañ mais artistes comédiens yi ñoo ci raw parce que ñun la gënoon jege ñun ñoo xamoon biiram xam bitam xam léppam man mii rek man man moom sama papa la noonu laa ko mën a wax parce que li may partagé ak moom dafa bari trop trop trop ak yow. partage bi ñuy def maak moom du dara lu sëñ Modou gëmal sa bopp parce que yow Baye Fall nga parce que maak maak Père Bass suñu dund man ak moom dund murit la Baye Fall taaliba suñu waxtaan yëpp man ak moom barki maam Seere Fall suñu waxtaan mësta weesu Serigne Touba Chebre dem naa ba bëggatuma ko waxtaan ak moom parce que su ma koy waxtaan ak moom Baye Bass dafa yor xeetu daanu leer boo xamante ne ci moom laa ko mës a gis da nga yaakaar ni day crise so wax ci dootu fi ne da ngay jékki-jékki gis ko muy jooy booy wax ci maam Serap Fall même chose dem naa ba sama diggante ak moom damaa arrêté waxtaan boobu parce que dama naan ko bàyyi ba sa yow ne koo waxtaanal parce que yow dañuy waxtaan ngay daanu te waxtaankat nag bu dee moom hmm. en tout cas mu nekkoon suñu papa ju baax oh, xam naa ni yàggul xam nga tawatu mag day dem ak a ñëw hmm. mais xam naa ni bi mu ñëwaatee nii yàggul parce que man mënu ma gisante ak moom y a deux semaines matul sax deux semaines hmm. donc ñu woo ma tey na ma gaañu kon nga xam ni kon feebar bi donc feebar bi yàggul. en tout cas li may dénk njaboot gi mooy ñu muñ. Mhm. ñu bokk ndey bokk baay. gis nga àdduna ñi war a bokk suñu borom moo leen di boole moo xam nag ci famille bi dañuy bokk ndey wala dañuy bokk bàyyi rek parce que bokk bàyyi am na waaye bokk ndey rek am na waaye li ci ëpp solo mooy ñu jéem a bokk ndey jéem a bokk baay xam ni baay bas benn la woon mënuñu ko séddoo ñi sant jaxate kenn mënut a fexe ba duñ sant jaxate kon ñu rafetal mbir mi xam ni baay bas fa mu ne ñaan rek la soxla. ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te teeral ko ca àjjana firdaws yi gën a kawe ci barkentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikhul Khadim doole maam Cheikh it ma leen di remercier ah, parce ci suba ba léegi maa ngi leen fii gis yéen a ngi def liggéey bu am solo donc yéen ku ci rek site bi nga ne yàlla na nga ci gis sa bopp suñu borom defale ci teranga defale ci xéwal ba mu doon ay télé ndax réew mi di kon yéen dama leen di ñaanal ay télé ci doole maam Cheikh Fall jaa ngeen jëf jaajëf euh, ñu bokk yëpp vraiment di ko naqarlu te xam ne euh, démb rek ci ngoon maa ngi doon jokkook soxnaam maa ngi doon jàkkalook soxnaam euh, di ko laaj nu bas def parce que daf ñu annoncé nii dafa nekkoon daalu le mais bi mu ko waawatee dafa nii euh, yàlla dogal na suqaliku na daal ba ñu amoon ci espoir waaye nag yàlla moom ah bu jëlee dogal moom kenn mënu ci lenn ba tey ci suba ñu yëgal ñu ne dem na waaw Euh, ñëw nañ fi ñëwaat fii ah doon ko ñaanal nag ñun ñëpp waaye ku ne ku nekk xam na ne Bass Diakhaté taxawaayam ci wàllu théâtre kenn moo ko natable tellement que euh, joué na ci yu pièces yu bari bari bare bay jaar jaaram au niveau de Daaray Kocc jaar jaaram au niveau de jamono tey jaar jaaram au niveau de Larcotte nga xamante nii wax dëgg yàlla euh, def na fi lu am solo Bass Diakhaté dafa ma daan assisté ci samay mise en scène yu bare bare bari ni mu ko waxee ay Sakho du Ceddo ay Nder en Flamme Kër Baye Dame nga xamante ni mooy won son principal euh, assistant di may def forme itam ay acteurs et comédiens yëpp au niveau du Grand Théâtre moo ma daan assister. kon nag nekk na koo xamante ni kii vraiment mënuñu ko fàtte d'autant plus que Bass Diakhaté mooy woon le vice-président de l'ACOS de Dakar man ma jiitu waaw mu topp ci man. amul lenn loo xamante ni daawoon na ko def te euh, daawu ci woon waxtaan ak man ah yàlla nag ay mbiram kenn mënu ko euh, dëgg yàlla dañ koy ñaanal rek ci li mun a wax ci gàttal parce que bés la boo xam ne c'est un jour d'émotion ñu ñaanal sunu borom bi xaari ko ajana waaw. waaw relation amicale la dernière fois euh, yàggul lool maa ngi koy tooñ naan kaan mais Bass Diakhaté xanaa dooma jaay ci garab yi ngay jaay. parce que bon voilà dafa doon jékki di def ay commerce ay médicament ak yooyu yëpp. Euh, tradi tradi moderne di ko tooñ noonu waaw euh, ba ba ba barke démb rek kii euh, sëñ Modou mii ma naan parce que jaxte ñoo na arcos Dakar du tasek mais daf fekkoon ma génne ba ñoom ñu waxtaan y a même pas un mois dégg nga bon ñun xamoon nañ ne xëy na feebar na waaye ñëppay feebar parce que boo dem ba am yenn âge yi ah ay cinq cinquante ans soixante ans ba soixante dix ans. Hmm? ah euh, dëgg yàlla dañ ne mag rek feebar la donc loolu la donc lii diabète ak lii tension yëpp daf ñu dal ku nekkalee dal nag waaw ñaan dañ ñaan yàlla rek mu yeex mais suñu relation ni mu ko waxee léegi relation de travail la parce que nee naa ne Bas Diakhaté dafa ma assisté ci liggéey yu bari yu ma daan def fii au niveau de l'ARCOS Dakar gii mooy vice président wala ñu am ay pièces ñu daan dawal fële au niveau de Grand Théâtre wala RTS yu ci nekk dama assisté xam nañ ko nag vraiment ci comédie show boo xamante ni amaloon na ko ak ñoom Tony ak ñoom Kader ak yooyu yëpp ah daan def lu am solo ci wàllu koor gi bu ñëwaan fële au niveau de Walfadjri ñëpp ràññee ko ci ci loolu vraiment Bass Diakhaté c'est un artiste hors li ma gën a neex ci moom mooy que Bass Diakhaté doo gis mu mer moo soo gis mu mer xol xolam dafa rafet dafa mos a rafet macha allah waaw xolam dafa mos a rafet waaw te vraiment euh, duñ ko fàtte daal parce que liggéey na fi loo xamante ni lii euh, muy état la ak ministère de la culture war nañu mën di fàttaliku njaboot gi nga xamante ne bàyyi na ko gannaaw parce que loolu rek mooy suñu problème aujourd'hui artistes yi nga xamante ne dañu liggéeyal réew mi liggéeyal ba yàlla dogal ñu dëttu ah na jàppale du gestu seen famille parce que loolu aujourd'hui mooy problème mu vraiment les artistes comédiens yi nga xamante ne dañuy évoluer dans le secteur dans dans le privé ñu ñëpp dañuy évoluer dans le privé nous ne sommes pas des comédiens fonctionnaires dégg moo taxoon ñu ne am na fon boo xamante ne bi ñu ngi ciy xeex depuis boobu ak léegi ñu ngi ci ñafe di pour ministère jàpp ci président Macky Sall war ci jàpp pour que yu mel nii su amee ñoo xam ne am nañu fonds dédié au théâtre ñu jàppale ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoo dundal théâtre ci réew mi ah ba tax théâtre yem fu mu yemat yegg tey donc loolu la waaw kon nag euh, vraiment di leen itam di leen gërëm di sant yéen ñi nga xam ne vous êtes la presse